loo li mu wax teg ko fenn li mu def àndu ci mooy li mu yóbbu xarañ loo nii xale bu ndaw boobu kii senap hmm. loolu indi cool ñu seeti ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf sama gan a ngi nii toog di Moussa Diop di kenn koo xamante ni nii kenn ci riim yor Dakar dem dikk di kenn koo xamante ni nii kenn dootu ko présenté ku baax maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. baa yaa ngi am jàmm maa ngi am jàmm maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah Fountale nag ñoo ko war a lii nga xamante ne nii mooy émission bi waaye dañu seetlu nii wax dëgg yàlla kii nga xamante ne nii mooy Moustapha Cissé Lo wax ni carrément domaine boobu waru ci woon a dugg ndax Macky Sall gi nii ànd ak euh, ñaaxariñ ca campagne ba te ba léegi waxu leen ci moom mu ànd ak moom ngeen ciy wax lu waral loolu euh, man dama respecté Moustapha Cissé Lo mais li mu def dama ne am na ay journalistes yoo xam ne ñoo ko jàng muy seen métier dëgg la donc ñooñu boo leen fi bàyyee dem jël koo xam ne loolu du métier nga agrité ko ne kooku journaliste la mu demee fii ci mbubu journaliste. loolu usurpation de fonction la. dëgg la mu ne mel la tey ñu jël la yow yow Thiamas. Mhm. ne la tey boo demee dañ la jàppee kon journalist boo xam ne euh, boo demee sa métier moo fexe ba couvrir affaire bi bind ci filmer ko wax ci commenter ci. Mhm. waa mais loolu bu fekkee nekkul sa métier. boo demee jël nga métier jàmbur mbuboo ko waaw mu ne mel na nag golo bu jël deru deru béy muuroo ko ñu yaakaar ne béy la fekk golo la jërëjëf loolu laa ñaawlu mhm. mais Moustapha Cissé Lo bu ñaawlu loolu dem jël koo xam ne loolu du métier nga jot ko bu ko forcer pour métier loolu laa ne journaliste ci boppam neexu leen te man ñoom laa àndal jërëjëf wax dëgg yàlla wax nga wax ju solo bëy de ànd ak moro bëyam bu fekkee caméra nga jàng da nga def defi caméra munoo faj biir ba noppi di faj tànk yan ci yàlla musal léegi nag ñu dem ci ñaareel question bi mooy noo gisee football bi moom fu nga xamante ne nii nekkoon na fi di football. waaw mais loolu moom la intéressé parce que moom bu demee foofu di football euh, en tant que euh, président bu CEDEAO bu ñu ko fa taakaloon tànkee dam mara de taali boobu moom mooy andi ba problème mais mais xam nga man duma dem foofu man man yooyu bon loisir am la <laughs> bu doon bu doon leneen sax moo xam mais essentiel man euh, bon li ma ci mën a wax daal mooy ànduma la fait que mu yóbbu ay xarañ euh, snap ay yooy vraiment et image am non c'est pas image boo xam ne moo waraama ah. Seydou baal de baal ma de allo waa Cissé xam nga lu mu doon man loolu doon ma ko wax mi ñu ni toog bu fekkee toll na la noonu nga wax ko waaye Cissé man sama xam nga lan la man simple journaliste laa demee di jiir sama micro di wax mi ngi nii toog nag bu fekkee doy na nga wax bisimilah kan na dugg Sénégalais yëpp dégg ko ma ne na nga dugg Sénégalais ak yow tamit. Ah. yaa ma gën a ñaaw. yaa ma gën a ñaaw. ah booy gën a ñaaw. yow bu ñuy natt ci njool yow yow yaay kan yow mi niroon njabala ma ne yow doo eh, dara eh, eh. doo dara. billaay doo tus man ragalu ma la fenn. loo ci bañ bañ ma ko ci nga ne lan génnal génnal ci téléphone bi ragalu ma la tey ragalu ma la ëllëg. min ko alpulaar ah ragalu ma la wax. loo ci bañ bañ ma ko ci. ci ma ne bot jàmbaaru fàq dëgg gaa ngi nii dama nuroog bot. non c'est pas yow yow yow man du ma xasante yow parce que xam naa ne bu dee ci domaine boobu yaa ma mën. yaa ma ci mën mais dama la bëgg wax ci débat bi de li nga def tegoo ko fenn du yoon tey anuma ci ànd tey anuma ci ëllëg nga ne lan lu ñëw ci buntu télé bi eh, eh débat bi TFM la maa ngi ci buntu TFM ñëwal ñëwal man tukkuloo laa xaal pulaar la du ma tàppet ñëwal yaay kan yaa a gën a ñaaw. ba ah safurlaa. yaa a gën a ñaaw. yow mi noo jaan bu taxaw rek. yow tamit moom kenn xamul lu mu nuru. waaye ma ne sa bakkan dina ah, ah. paxu duus. Ah, yaa kenn xamul lu mu nuru sa loo ci bañ bañ moo ko ci. bilaay doo dara yow tamit doo dara. Eh, eh, ëpp naa def man man. ay waxu tubaab yi waxuñu ko de waxu.